mécanicien ak artisan yi doon yëngu filé nak ñu duppé kamba ga nek rek digënté cité mixta ak cité damel nak dañu leen jébbalub ndogal rek ngir ñu joggé ci bërëb bile ki def li ni mel nak di préfet bu ndakaaru ñilé di ko nakarlu sommation ñu ñuko jox bërki demb lañ ñuko jox presque heure bi lañ ñuko jox bindal ñu sommation sans délai bi lolu amé

xaw fee yàq ay quelque bagages ne dina ñëwaat tey yàqaat li des jël oto yi ñun nag dafa am loo xam ne dañ koy lancé ay jeunes lañ ci dëkk bi lañ dëkk mosu def dara loo xamante ne luy salfaañe autorité la. ñoom mécanicien ak artisan yi sax ñoom dàqu ñu benn yoon ndogalu kilifa yi waaye lañ mënta nangu rek moo di ñàkku diir bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci mbir mi ñu gis ne dañ leen bëgg patam patamee. bu ñu bàyyee ci ni mooy rey nañ ñu comme nag du ñu nangu ñoom ñu rey ñu ci bàyyi ñu ni ñoom nañ ñu reyal seen bopp ñoom ñu rey ñu mooy gën parce que dañ ñoo war a jox feneen mënoo ñëw rek xëy nit ki nekk fi ay at nga xëy ne da ko fiy jëlee c'est pas normal ñun ñëpp ay perde de famille lañ yor ay palace nga bàyyi ba couvre-feu bi commencé nga ñëw fi xaaju guddi ñëw commencé di dindi ay oto ba daa am ñu si guddi gi ñoo xam dañoo forcé sax dañ leen japp ci guddigi ndax heure couvre-feu bi buñ nañ ko duñ ko def doma ma jox sommation tay ci guddi nga ñew ci suba c'est pas normal ak wéru koor gi ah ñun ñep ay place lañ yor am fi ay bagage am lepp lolu yoon la ah tamit nit ki mëno ko jëlé fi ne ko doto am fenen moy kay dem deey légui ñun d'accord nañ ñu dem ndo estat mu fekk ñu faak fetal ray ñun ñun ñep jamono coronavirus yi li gënoon war moy ñu dimbali askan wi askan wi sonn nañ nit ñi ñu naanuñu ñu ñëw du jaay doole lii daal mooy toroxal doomu aadama toroxal doomu adama rek Macky Sall war na xoolaat ni muy doxalee xoolaat xam ne dafa yor ak njaboot waaw te xam ne képp ku jiite am réew na ëllëg yow ma xiyaam dina la laaj ñoo yore woon réew mi loolu war ko sóoraale waaw te àddina bi nag du wéy de nañ jàppale néew gi doole ndax dañoo bokk ci réew mi dañoo bokk ci réew mi nan ñu gestu domaine bi lee nag nekk ci compétence commune bu Patte d'Oie ba tax na nag maire bande Diop mom jàpp ne espace bile alalu nguur la. ñëpp xam nañ ni ñu ngi ci contexte euh, bo xamni contexte bu xawa doy war la muy contexte pandémie duñ ci paré aussi massaw euh njabot gi surtout ñoñu nga xamanteni ño ñoo fofu ci kamb gi nekk fa ci ay conditions yu xawa doy war parce que ñun bi ñu installé 2014 ba légui jàpp naa ni gën nañu fa ben crédit pour autoriser fa ndax loolu foofu dafa nekk ay euh, situation foncière boo xamante ni situation foncière bu état bi la euh, ñu yàgg nañu aussi sàkku pour ñu mën a fexe ba euh, gën a defaraat bërëb bi parce que xam nga foofu cité yi ko wër lu mel ni Kër Damel lu mel ni cité Léopold Sédar Senghor cité Mixta cité magistrat yi ak cité Sonatel yi yi ko wër ñooñu ak immeuble Attaay yi jàpp nañu ni bon ay zones yo xamanteni la c'est des zones carrément urbaines donc so ñëwé automatiquement lu mel nonu am fa da fay indi problème ak surtout contexte fiñ ñu ci contexte wu euh, corona euh, jàpp naa ne fofu niñ fa nekkee su fekkon sax ay garage kessé ñoo fa ne wala ay ferrailleurs kessé mais dañ fa bolé lépp dañ fa boole artisan yo xamné ne ferrailleurs la ñu mécanicien ensuite bolé ci ay njaboot yu fay dundu te xam nga fofu nekkin bi da fay xaw doy waar tey nag ñoom artisan yi le ak mécaniciens yi nag ñu ngi xaarandi rek ñu jébbal leen seen site de maanaam fa ñu gën a rek dem ngir wëyal seenub liggéey. dañ ñoo jox cinquante hectares jam ñaajo nañu dinañ leen fa yóbbu balaa ñuy yëkkateeti kenn dinañ leen fa yóbbu yaa ngi dégg wala ñu jox leen site bu provisoire bu fekkee ne nag loolu am na pourquoi ñu ñar noo fekk fii bu fekkee ne désencombrement la ñuy xeex ñun désencombré wuñ kenn. baare cen fii nit mun na fee jaar fukki at Nord Foire fii du xam ne fii ay garage ang fi kon waxuñu ne ñun duñ fi jóge mais balaa ñu fiy yëkkati nañ yóbbu ci cinquante hectares bu fekkee ñoo ko moom. waay waay dafa am loo xamante ne nag dafa am loo xamante ne dootuñu ko nangu dootuñu ko nangu. Euh, ci wàllu yërmande bi état bi mi ngi koy def bu baax a baax parce que tey jii am nañu ay zone de recasement yo xamanteni ko et mi ngi bu baax discussion yi ak euh, ak partenaires japp euh, war baral wax euh, mais aussi japp naa ni dara à ce que ñu améliorer cadre de vie bi te japp naa ni lépp ko def ci dal ak ak ba comme la ñun ay population lañu ñu ngi nañ bu baax parce que aussi foofu lañ tàmm foofu la xam ça veut pas dire que euh, Amel war ñu améliorer cadre de vie donc maa ngi leen di mais aussi di gën a ñaanaat état bi yërmande pour ñu mën pour ñu mën baral fi nga xamante ni fa lañ leen war a yóbbu euh, ci zone yi nga xamanteni ni foofu décider yobbu len du rek mécanicien yi ñoo doon yëngu ci site bi lé amna yit ay njabot yu fi doon dundu ñoom it nañu leen ndogal ngir ñu joggé na mu gëna a ci bërëb bi